nga xam ni li ko tax a jóg comme ni ma ko waxee mooy xeex ñi nga xam ni euh, li leen tax a jóg ñoom seen bopp mooy ñëw pour indi ay jafe-jafe indil pèlerins yi ay jafe-jafe loolu inter police nationale ànd ceeg commissariat yi nekk fii ci Touba ak renfort yi jóge woon yeneen localité yi commissariat spécial bu Touba commissariat d'arrondissement bu Ndamatu poste police bu Guy Mbind commissariat urbain bu Mbacké commissariat Djourbel, central bu Djourbel, commissariat urbain bu Bambey ak renfort yu joge groupement mobile d'intervention ak wa OCRTIS ñi xex walum Sinébar ñom ñep dañu àndoon di def ay opération laté magal gi di commencer weer avant magal gi di commencer donc ci lolu japp nañu lu mat juróom-ñaar témèr ak juróom ñen fukk ak juróom-ñaar ci ay nit ñetti témèr juróom-ñetti fukk ak benn ñoom lañu jébbal yoon ñoo xam ni liñ leen di toppe mooy ñaar téeméer ci ñoom ak juróom-ñeent ak juróom lu jëm ci wàllum sàcc jël alalu jaamu boole ci ñenn ñi boole ci ak ngànnaay juróom benn fukk ak juróom-ñeent loo lu jëm ci wàllu sineebar fukki band ak ñett yoo xam ni jàpp nañ leen ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-benn yoo xam ni dañ leen jàppoon saytu seen identité bi ñu paree ñu bàyyiwaat leen fukki kilo ak ñeent drogue moom la ñu jàpp teg loxo ñaar fukki pilule drogue bu xeetu drogue bu ñuy wax ecstasy walum dem bi sécurité routière ñetti junni ak juroom ñetti fukk ñetti ak ñetti ak ñetti pièces saisir ñetti téeméer ak ak mise en fourrière ak moto le immobiliser immobilisé également. juróom ñet juróom ñaar fukk ak benn ay charrette ci wàllu accident yi ñu ngi enregistré juróom ñetti fukki accident ak juróom ñeent yoo xam ne accident matériel la maanaam ay oto yu daje wala leen yoo xam dégâts matériel rek la ñeent fukk ak ñaar accident corporel ay nit yu ci am gaañu gaañu ak ñetti accident mortel ñetti nit ñoo xam ne dañ ci ñàkk seen bakkan ci wàllum dispositif bi ñu teg en place pour màggal gi ci boppam police nationale mi ngi engagé ñeenti junni ak téeméer ñeenti junni ak téeméer ak juróom benn fonctionnaire de police loolu boo koy seetlu par rapport ak li woon daaw effectif bi yokku na lu mat ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñaar wàllum plan de circulation bi maanaam dem beeg dikk bi préfet bu Mbacké dafa jël benn plan de circulation boo xam commencé nañ ko appliquer tey bi minuit jotee bi zéro heure jotee donc plan boobu suñu éléments yi ñoo ngi sur le terrain pour fexe ñu appliquer ko correctement pour nit ñi mën a dem ak dikk bu amul benn jafe-jafe